wax euh, santé mais balaa loolu moom da tam dañuy politique moo tax tey ci biir loolu may def ma jàppale président de la république ñun ñu ne tamit ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal nan la ñuy def dañ leen di may lu ñu mën a ci seen liggéey ñu yombalal leen ba ñu mën a am li ñu soxla loolu moom mooy autonomisation maanaam jàpp may leen lu ñu koom boo xamante ne dootuñu soxlaati ñaan kenn ndaxte acteur communautaire de santé yi su ñuy gis su ñu waxee résultat ci santé ñoom ñoo tax ñuy wax parce que ñoom ñooy nekk lépp ñi nga xam ne ñoom la ñuy njëkk dajal ci santé c'est-à-dire tey jii su fekkee dañuy am prévention lu ñuy wax fegu balaa moo gën faju ñoom ñooy base fe fegu boobu fegu boobu nag ñoom ñi ñi ngi ciy nekk amuñu guddi amuñu bëccëg amuñu naaj amuñu taw tey yàlla am na amuñu lenn lu ñu leen ci fay lu dul su amee ay programme ñu jëm leen as tuut lu ñu leen di compal te loolu du leen mënal mënal dara loolu moo tax ñun ñu ne nan la ñuy war a ci suñu xalaat bu ndaw ak suñuy moyens yu ndaw lu ñu leen di mën a jàppale ba loolu ñoom du ñu xaarati gouvernement du ñu xaarati dara ñoom ñu mën a am loo xamante ne dañ ci am ci seen poche di ci liggéey ba suñuy dem ëllëg di wàcc ci terrain bi pour jàppale askan wi dina fekk dinañ am lu ñu bàyyi seen kër. dimbal boobu ndax da ngeen di jël xaalis jox leen. non non du ñu jël xaalis dañ leen di former moom mooy li ñuy wax formation ci activité génératrice de revenu maanaam ci liggéey yu ndaw yoo xam ne da leen di jox koom moom mooy defar saabu defar eau de defar ay euh, ay soow defar ay yeneen ak yeneen yoo xam ne du laaj alal bu bari pour nga defar ko te te yomb muy bouillon ak ay euh, huile miracle yu bari la daal mais yoo xam ne du laaj xaalis bu bari pour nga mën ko am te soo ko amee dina lay may nga xam ne di nga am tuuti loo mën a denc sa kër mais soo ko dencee wala nga lekk ko ëllëg da ngay doo dem fenn moo tax lañ leen di jàppale ci nu ñu leen di jàngale pour nu ñuy def ba aar ko moom mooy crédit ak épargne épargne boobu nag ñuy def ak crédit ay kees la yoo xam ne dañ koy mettre en place kees yooyu nag moo leen di may ku ci ne ñu am loo denc su at bi jeexee ñu toj ko séddoo li si des ñu denc ko ndax denc boobu nag moo ñuy may ëllëg ñu boole li lëkkale li ñu yor yëpp ci mbooloo ak li ñu yor ci kees yëpp ñu boole leen lëkkale leen muy nekk doo alal bu am maanaam bu takku ñu mën a waxtaan ak euh, euh, société yu mel ni comme FONGIP pour ñu garanti ñu ñu mën a travailler ak euh, banques yi ak microcrédit yi pour ñu mën ñu lebal ci ay anam yu oyof maanaam ci jàpp ko ci cinq pour cent jàpp 6 pour cent te xam naa ne sax bés bu ñu amee li ñu soxla dinañ dem ba mun a sax demander ay prêt ci ay 3 pour cent ki 4 pour cent fii mu toll nii fii ma fii ñu toll nii ci lim ci lim te bokk booleguñ ci ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo egg si tey ñiy waxtaan ak tey ñi ngi ci mille cinq cent ñetti junni am na 2100 yoo xamante ne moom mooy ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñi may wax ñoom seega mbeng mooy ay avec la am na ñun suñu bopp ñi ngi ci 1500 yoo xam ne tamit ñi ngi ko teg loolu lépp soo ko boolee te tey ji ñii nga xam ne ñoo ñëw tey te ñii ngeen gis tey ku ci ne dafa am ñoo xam ne dañu ko représenté ku fi ne tey rek sa mbooloo ngi sa ginnaaw da nga ko faa bàyyi soo ñibbee da nga koy dem wax la fa ne yooyu yëpp suñ ko monté suñu objectif moom mooy cinq 500 groupement di si fin de l'année 500 groupement nag soo ko limee ci lim dina fekk fukki junni ay lu topp ci nit million ngeen fas yéenee jël dooree ko liggéey bi. Mhm. waaw parce que mbir mi nag comme dañu koy door a door du ñu xaar ñun ñoo jël ci sunu gafaga dem gisante ak FONGIP mu garanti ñu ñu daal di gisante ak euh, euh, nu mu deti benn euh, banque microcrédit pour que mu jàppale ñu pour ñu lebal leen loolu nag sant million la bareegul lu tuuti la ñu jàppale leen ci en nag. li nga xamante ne moom mooy li ñu wax ne boole leen seen doole ndaxte nit ki sa doole booloo mooy doole booloo boobu la ñuy yaakaar pour que nag ñu ëllëg ñu am ay somme yu gën mag parce que dañu bëgg ñun ay crédit yoo xam ne dinañ jàpp ci au moins 2 ou 3 milliards loolu lañ soxla ci femmes yi mais pas encore ay 100 millions yooyu xeeb nañ ko waaye moo fi nekk moom la ñuy jàppati. Euh, mais surtout si euh, dimbalante euh, mais aussi da ngay politique. Mhm. waaw ku def dara yaa ngi si xar ëllëg leneen. waaw maanaam ñun li ñuy def moo tax ci ñi ñuy woo ñëpp laaju ñu kenn fa nga bokk dañ leen di woo pour kaay leen ñu jàppale leen léegi nag yàlla mu def na ba nit ñi suñu goree soo leen jàppalee ñu gis ne que yow yaa ngi leen jàppalee ci seen añ yaa ngi leen jàppale ci lu ñu man soo leen soxlaa doo leen su ko wax xel nangu na ñu ëllëg ñu jàppale la waaye nag du leen loo xam ne ci ñuy door dafa am loo xam ne conditionnalité la maanaam sooy door ñu ne la soo duggsee il faut nga bokk ci carte bi wala soo ciy bugg lii la mën nga ànd ak ñun ba bés ba jot nga ne feneen laa jëm man ma nangu ko waaye nag xel nangu na tamit nit ki nga xam ne moo sonn ci yow bés bu soxlaa nga ñëw taxaw loolu rek la mais du pour loo xam ne dañ ko jël demandé kenn mu ak carte salaaj ñu carte. wàllu assainissement bi jàpp ngeen euh, nguur gi war na gën a baral loxoom quand pour que Thiès dëkk bu mag ne moom saa yu wisee rek nit ñi nag say jafe-jafe. waaw xam nga tey loolu xel nangu la ndaxte ñu xoolee ci njëlbeen plan d'assainissement wu Thiès moo gën ci Sénégal mais am na tey ñoo xam ne ñoom ñoo yor nguur gi maanaam ñoom ñoo yor communauté collectivité locale yi fii ñu am loo xam ne daf ci leen war ndax at at bu ne su fekkee dañu xam ne ñi ngi jëm ca nawet ndax nawet du bett kenn ku ne da ngay xam ne ci weer wii nawet dina am balaa booba war ñoo dem def yenn assainissement travaux pré-hivernal maanaam yi nga xam ne moom ngay def balaa taw bu nga xam ne dina yombal yi fi loolu yàlla def na ne tey ñun newuñu fi ah ñu ngi ñaan ñi fi ne ñu jën cee góorgóorlu waaye comme ni nga ko waxee aussi président de la république war na cee jàpp pour que loolu nga xam ne muy plan de développement ah, de l'assainissement plan directeur de l'assainissement bi ñu war def ci biir Thiès am na que président ci loxoom ñoom am nañ ci na nee nañu dinañ ci ko dinañ ko def na tuuti waaye ñun comme ni nga ko waxee ñun tam war nañu xeex pour que mu gën a gaaw pour que président tamit fàttali ñu fàttiku fàttaliku ñu ñu defar plan d'assainissement Thiès parce que Thiès tamit daf ko laaj Thiès dafa nekk dëkk boo xam ne sëlëbe yoon la dëkk boo xam ne vitrine la pour Sénégal wala am xam ne waru fee amati. docteur Ndiaye laaj bu waa PDS Thiès nee nañu président Macky Sall daal laaj loo si tontu. waaw mais loolu waxu waxu la rek xam nga nit ki su ñu nekk di politique ku ne day wax lu la neex wujje politique moo mel noonu ku ne nañ ku sa wujj sëlëm doo set ñoom suñu ñëwee taxaw nañu loolu liggéeyuñu te sénégalais yëpp yëpp ku ci ne am na yaa ngi teg ne jàkk ci li président di def ndaxte fii ñu toll nii ku gis euh, plan euh, euh, kii bi nga voie de contournement nord bi nga xam ne mooy VDN VDN bi nga xamante ne tey day continuer ba Tivaouane Peulh tey jii nga gis pont pont de l'émer pont de l'émer l'émergence bi nga xam ne defar nañ ko Patte nga gisaat yeneen ak yeneen yoo xamante ne muy PUDC bu nga xam ne mi ngi dem fekk askan yi di leen jox électricité di leen jox ndox di leen jàppale ji jigéen ñi ci seen euh, liggéey ak ci seen ay matuwaay kooku ku ne gisuma ko kooku da nga bëggul gis ni njant mi ne naññ fi mu ne nii am na ñoo xam ne nee nañ jant amul yàlla ci boppam dañ koy diingat astama koo xam ne day ciit président daf ko war a nangu waaye nag bu fekkee nag dangay ngay daw te ku mbott bu tàccu ci nga nga gestu ko su di doo bëgg doo yegg ci nawet maa ngi di garde maam docteur Badara Ndiaye mii muy Badara Ndiaye Malick Ndiaye Pape Amadou Ndiaye ñun ñii ñoo bokkoon di jàng fa docteur Diop docteur Diop résultat yi mu def ci biir Thiès ku soxorul rek war xam ne ku gis nen ne mere ngi ku dem ba met euh, district bi fii muy dixième nga xool xaru kanam bi mu am tey ak xaru kanam bi mu amoon démb yàlla na ko yàlla yokk ki ko représenté nag di suñu jabar di suñu doom maanaam Fatou Zahra li mu wax man borom muy jigéen joo xamante ne ku ne fi cees rek jox nga ko cër ci bëgg liggéeyam ci ni nga xamante ne moom la taxawee muy taxawaay bu rafet mu lépp moo xamante ne muy yaram ak teggin mu mët ko yónni di ko ki ko yónni mu mët ko sëkk mu ab mët na ko sëkk di ñëw nag ci ñi nga xamante ne moom mooy représentant des ICP monsieur Youssou Margane ndax nee nañu peccum liir su neexee ndey jaatee ca mbagg ya kon suñu nee ICP relais su suñu nee relais bàjjanu gox ak acteur communautaire ndax daal ICP ak sage-femme a tax ndax ñoo leen téye téye bu rafet ba nga xam ne mën am liggéey di nuyu nag le président du réseau des acteurs communautaire mi nga xamante ne mooy monsieur Djibi Faye ndaxte su ma ko nuyoo rek yéen ñëpp dugg ngeen ci ndax mooy seen représentant di nuyu mbooleem ñi nga xamante ne ñoo ànd ak man tey aussi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóg. ànd ak man ñëw fekk ma fekk si leen ñoo xam ne mbir mii moo leen indiwaale olof dafa ne ku lim juum man dama ne ku lim doo matale looloo tax duma ma lim ñu yem foofu ñun ñëpp xamante ne ñu ñun ñu ngi leen ñëpp ku ci ne ñu koy nuyoo ci sa san tey jii dañuy wax loo xam ne dafa am solo lool mooy les acteurs communautaires de la santé tey su ñuy doon dañuy wax ne que santé. politique de santé su doon ab mbaar yéen yéenay keno gi yéen ko téye ba tey jii ñu mën a am résultat yi ñu am léegi rek madame Guèye Fatmata nee na qu'il pleuve qu'il neige yéen gi ci kaw terrain loolu mooy li nga xamante ne mooy li nekk amul guddi amul bëccëg yéen a ci askan wi ndax bu guddi jotee ku jaaxle sa kër ci feebar yéen ñoo fëgg wax bëccëg jotee doo leen nelaw waaye nag am na loo xam ne dafa ñuul ci soow bi ndax seen gëdd lañ leen seen gëdd lañ leen joxul ndax xel dafa nanguwul loolu di koy def volontariat xam nga nit soo ànd moom muy def loo xamante ne lu doy waar la lu ci ci ci askan wi nga ne ko lu tax mu ne la non non loola loola neex rek defal bu buñ fay fayal nga ne non non soxlawul loo rek loo ma jox jël jël ma jël waaye soo amee xel loo xaar ba loo mu la yox yaa war a ko jox la ca war nga ko faj ko te tey toll nañ ci fi nga xam ne ku ko xoo comparé ñi nga xam ne tey jii ñoo yore bloqué système éducatif bi ñuy wax problème yi nga xam ne mooy syndicat enseignants yi la plupart 80 pour cent yi ay volontaire lañu woon waaye ba mu demee bu ci biir dañu ne bëggatuñu volontaire nañ ñu fay ba ñu leen commencé fay def leen fonctionnaire tey jii ñu ne nag léegi nañ leen def seen i rappel yéen laajatu leen loolu lépp def leen ci dara te kenn du leen yeyoo leen kenn gënu leen koo yeyoo tey jii mbir maa ngi dox dox na ba yegsi fu nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo leen doon gunge ba tax ne ragalu leen muy Child Fund muy plan international ñu ngi ñuy toog waaye ñoom it gunge gunge boo gis wàllu teen la ci pind ma ngay yem fi mu ne nii taxaw nañ ci pind mi ñun ñoo war a continuer mbir mi te loolu kenn du ko def ñun ñoo koy defal suñu looloo tax ma daal xalaat daal di ne ñun dañoo war a dugg ànd ak euh, agent communautaire de santé yi pour acteur communautaire de la santé ñu seet nan lañ leen def ba ñu matal seen bopp matal seen bopp moom mooy mbir mi yenn saa su fekkee yaa ngi xaar loo xam ne mi ngi ñëw parce que man leer na ma ne président la république muy ministre de la santé parce que waxtaan naa ak ñoom ci loolu seen xel yépp mi ngi ci yéen waaye nag waaye xaar xaar lu yéex a ñëw su deful ndànk xaar di xaj ci loolu moo tax ñun ñu ne nan la ñuy def ba nga xam ne dañ leen jàppale ci ay financement jàppale leen ci formation jàppale leen ci nga xamante ne ëllëg doo leen soxla kenn état ñëw ngeen dem état bañ a ñëw ngeen dem looloo def suñu taxawaay tey bi ndaxte xel dafa nangu comme sànq rek ñu ko monsieur Youssou Mbargane waxee yéen ay tànneef ngeen ci fi ngeen nekk parce que du ñu jóg rek n'importe qui dem ci benn kër ci benn dëkk fekk benn samba booy ne ko yow yaay nekk suñu représentant suñu santé ci yow lañ ko nekk ko def ku ci dëkk war ne damay sama santé ndax santé importance ci soo ko joxee nit ba ne ñun lu ñu soxla ci fekk da nga nekk tànneef ci fa nga dëkk kon ay tànneef ngeen fa ngeen dëkk yéen waaye nag loolu dafa doyul ndaxte mbuus bu dara newul mënta taxaw saako boo xamee ne dafa vide kenn mënu koo téye tegal ko mu taxaw yéen nag fi mu ne nii yéen a ngi commencé xaat bi léegi nag dañoo war a seet nan lañ leen di former formaliser leen jàppale leen ci ay financement ba li nga xam ne ñeneen ñi ngi ko am ñu yéen ngeen am ci loolu la ñu wax ne dañu bëgg ci cadre bi nga xam ne poste de santé bu ne ci suñu district bii ndax bay sa wewu tànk ci district bu ne ñu moo fa li ñuy wax accès association communautaire de crédit et d'épargne et de solidarité maanaam àndandoo di jàppalante di lebalante ak di laalante biir ndax loolu ci ngeen newoon waaye dañ leen cee war a di fekk si nag léegi jàppale leen ba ngeen am moyen yoo xam ne di ngeen ko def ci loolu la ñu wax ne nañu jàppale leen ci accès yooyu ci chaque zone bi ngeen nekk ngeen monté ko suñ ko monté tamit ñu wutal leen tam ay formation formation activité génératrice de revenu moom mooy les AGR les activités génératrices de revenu moo leen di may ngeen di am tuuti loo leen yor pour que soo leen jógee bàyyi kër ga di fa dem di wëri di di jàppale nit ñi ci santé bi mais day fekk loo fa bàyyi ndax di soo xëyee suba ba ngoon jot comme ni ko madame Guèye waxee léegi nekk ci réunion suba ba ngoon jot te soo ñibbee yow bàyyiwoo dara ci kër ga su ñaaree su ñettee jëkkër ji rek dañoo jàmbaar rek waaye su doon keneen dina leen dee eh, toogal ndaxte xëy suba ba ngoon jot su amul su amul programme ñu jox la as as comp ci programme as comp la ndax loolu du fay li ñuy wax ne la santé n'a pas de prix mais elle a un coût boobu mooy li ngeen war a bàyyi seen kër bàyyi kër googu nag la ñu war a seet ñu koy doxale mooy li tax ma jóg lool loo tax ma wax ak yéen moom laa bëggee jàppale leen ba ëllëg kenn dootu loo leen ñee benn ñu dama ñëw léegi dugg ci saal bi ma gis jigéen ñi xàmmee xaru kanam yu bare bare bare bare bare sama yaram dafa daw ndaxte tey jii suñu may tudd di wax sama wax ba ñuy wax docteur Ndiaye ci biir Thiès waaye ndax dëgg dëgg dëgg dëgg yéen la tax lën su lekkee alom na ko gërëme coy yéen a tax ma man ko lu ma am tey ci seen loxo la jaar yàlla nag mooy maye waaye ca loxo la koy jaarale ci seen loxo la ko jaar ngeen laayee ma biir ba daal dina leen loo leen am da nga koy ngeen ma koy bokk man waaye su gor tam lu ma am bopp koog yéen looloo tax ma toog tey fekkee gor laa yéen ko acteur communautaire de santé yi loo leen dugg man war naa caa nekk te xel daf ko nangu tey jii am na loo xam ne dama koo teg moom mooy li ma leen wax mooy accès yi su ma ko doon def tey ba jigéen ñi di ci am li ma yaakaar yëpp xam naa tey duñ ko mën a leeral ba ñépp xam nu mu demee ndaxte ay kees la yoo xam ne comme avec yi maa ngi ànd ak sama benn frère mi ngi nii muy Ségal moo xam ne moom tamit ku ci xarañ la door ci li ci def liggéey bu mag di ci ànd ak Assane Diouf mi nga xam ne plan international la ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom it loolu rek la ñuy liggéey lu ñuy def ba jigéen ñi mënal seen bopp mënal seen bopp boobu nag ñun dañ cee bëgg gën cee xarañ ndax man luñ ciy def te jigéen ñi bokk ci man dama ciy gën a xarañ ndaxte lu ma am ñoom a tax léegi nag action euh, avec yooyu mooy groupement dafa am solo te nag du tey la commencé parce que programme bu yàgg la waaye programme bi benn yëf rek laa ci gisoon boo xam ne pour man dafa sooxe ndaxte programme bi individuellement la lañ doon jàppale nit ndaxte su ñu ñëwee ci benn zone pour monter la sa avec su nga continuer liggéey yéen ma gën a xam ne mu demee su at bi jeexee ngeen toj kees bi at bi ñu toog ngeen doma démarré waat dem lu baax la waaye am ndaa toj ndaa du tax nga bëri ndaa soo leen baree am doole bi nga xam ne moom laa bëgg ci yéen mooy da ngeen di dem ba nga xam ne li ngeen fa yor dañ ko fay téye ñu boole li ñu yëkk yëpp lëkkale ko ci soo ko xoolee yéen ñii ku leen boole kenn xam ne ne doom mbooloo la ndax yéen ñii ku ci ne rek individuellement am na loo représenté loolu lépp suñ ko boolee muy nekk doole boo xamante ne toj ndaa su dotatee maanaam toj kees su jotatee ñu am luñ ci comp teg ko ci côté boole ko muy nekk ay centaine de millions centaine de millions yooyu incha allah ñu ci biir li président de la république teg muy FONGIP mu ñëw garanti ñu garanti boobu nag la ñuy jël yóbbu ko ci benn ak euh, mutuelle de crédit mu lebal ñu ay milliards loolu ñu bëgg milliards laa bëgg ci yéen te loolu mën naa nekk te loolu mën naa nekk ndaxte ñun xam nañu li ñu demee ñii ma àndal xam nañu li may wax seen caisse de solidarité yi ngeen yore ci biir avec yi soo leen ko boole woon tey parce que tey jii xam naa yéen seen potentiel ak nit ñu yor suñ ko defoon tey jii ci minimum fii ak fin d'année maa leen ko garanti dinañ mën a monter au moins 500 groupement loolu mën su fekkee solidarité en moyenne kii mën na ma ko garanti seen solidarité en moyenne mooy 100 francs yi fay leen ci suñ ko defee en moyenne ñu ngi nekk entre 300 ak 400 000 francs mais 300 ak 400 000 francs suñ ko boolee ci 500 mais ñaata milliards weesu na. xaalis boobu nag soo ko ñëwee teg yóbbu ko ci fi ñu ko war a garanté liggéey ko ñi ngi ko war a liggéey xaalis boobu day indi njëriñ njëriñ boobu nag laa bëgg ñu tasaat ko ba nga xamante ne parce que dañuy wax effet multiplicateur bi soo dugalee benn somme nga liggéey ko crédit bi ñu garanti la ko soo dugalee 100 millions dañ lay jox lu ñuy wax presque 500 millions wala 1 milliard fii mu ne nii li may dox. mooy li nga xam ne tey jii ci la ñuy doore dañuy doore nag ci sama ay tànk samay xel yi ñuy xel yi ñuy doore samay tànk la ñuy xel waaye suñu seen i la ñuy booleeg sama yos xel mi gën a rë mag mi nga xamante ne dañuy kenn dootuñu mën a te téye loolu laa bëgg tey jii nag dina am benn financement boo xamante ne incha allah fii ak weer wala lu ci teg soxaane mi ngi nii madame jaañ mi ngi koy leeral fii ak diir bu gàtt dinañ am financement financement boobu nag sama poche la. laa la guma ci seen dara ñun ñooy jël suñu xaalis dugal ko ci mutuelle bi crédit bi ñooñu garantie ko par FONGIP ñu lebal ñu 100 millions 100 millions yooyu nag la ñuy séddale ci suñu biir groupement yi pour que ñu am ci loo xam ne dañ koy dugal ci seeni i avec ak seen i accès pour que ñu jël leen a dooleel waaye dama leen bëgg wax loolu jàppandi la ndaxte lu kenn mën. ñaara ko ko dàq te ñaar waxuma ñaar waaye yéen suñu boolee lépp suñuy doole nas ko kooku day nekk loo xamante ne kenn du ko téye loolu nag bés bu amee incha allah dañuy nekk ci biir Sénégal yëpp référence district de Thiès ak département de Thiès ak jigéenu Thiès dañuy nekk référence parce que dañuy mënal suñu bopp te dañu xaar kenn loolu nag su nekkee boobu nag lañuy ñuy doog a boobu la ñuy doog nag wax ak ñeneen ñi ni ñu leen di jàppalee waaye nag balaa ñuy jàppale kenn nañu jàppale ñu ñu dëkkal ba pare ndaxte lenn moom leer na nañ bëgg naa la bàyyi sama bopp laa gën bëgg taxul na ma bañ naa la ñeen yéen laa yéen laa amal lu ma am fi laa ko amee kon fi laa koy ñu jàpp ko liggéey ba mu muy loo xamante ni kenn dootu ko laam-laam loolu laa leen doon wax yéen acteurs communautaires yi ne leen fi mu ne nii ak ONG yi nga xam ne léegi ñu arrêté soo leen defaloon ndànk ngeen def ne da ngeen a njëriñ njëriñu leen seen bàyyi ñu toog. taxawal kàddu bi ci lii laa leen koy waxee man su ma duggee ci lii ma dugg nii ci lu leer ba ma koy door dafa fekk yéen laa xalaat ndaxte man yéenay sama ñayu xare saa yu ma leen dajee sama xel dal yéen yéen ñi nga xamante ne lu ma am yéen la kon su ma duggee ci dara xuus ci ba sori ma gestu daju ma leen damay jaaxle waaye su ma xeestoo gis ne man dootuma dara dootuma ko ragal man gisuma dara laa yóbbaale ndax sama yomb na ndax yàllaay maye ëpp na ko gën maa yomb ndax lu ma mat lu ma am joxe waaye gën maa gore kooku dama ko mayu kenn ndax du ma kenn du ma gën a gore